c'est vite fait d'une ci d'un dañ koy hmm. cof rek mooy li nga la suppression du ministère de la femme nous suscité beaucoup de débats nous gis le collectif des féministes du hmm. Sénégal Guen Noir, hmm. ak li nga la la la la faible représentativité des femmes dans le gouvernement quatre qu'est-ce lañ ci am ñu ko que ci gouvernement yu passé yi fallu lolu lan nga ci mëna aïe andi ay ay ay ay say gis-gis aïe rek ah, jigéen ñi moom si réew mi bokk. exactement jigéen ñi mën nga mhm. leen génne si réew mi franchement mhm. suñu mhm. yaay suñu tante ah, suñu présentatrice yi journalistes je xam ne ah da ngeen ravir la télé et tant d'autres et tant d'autres mais quand même il faut ñu comprendre dara il faut ñu comprendre exactement la période ou bien l'état actuel fi ñu toll nii lu ñu rupture Mm-hmm. lu mm-hmm. un changement de système exactement jigéen ñi dañ à 100% Mm cent mm-hmm. comprendre des fois certains féministes certaines féministes mm. di euh, euh, elles ont été bernées par rapport à ce gouvernement On mm. comprendre parce que nous yaakaar nañ ni fu góorum nekk jigéen mën fa nekk exactement mais que le gouvernement unique à mm. tout moment mën change. changer D'accord. Dañoo woote un gouvernement de résultats D'accord. un gouvernement de résultats moo tamit il faut ngeen comprendre suñuy yaay ngeen. Mhm. suñuy tante ngeen. Mhm. suñuy lépp ngeen. mais mhm. quand même il faut ngeen comprendre dara. amatuñu on temps à perdre toog fii naan waaw poste bi jigéen la. Euh, góor la combien bi jigen la donc xaalis bi uti ku ko ku ko mën a def. woo faa woo kii woo kii. fexeel dalu si. passer au next. la parité nekkul fépp la nga appliquer.

donc lan mo gëna for responsabilité bobu noonu si may mën a jéey. Mm. denk nañ ko walu parce que tamit ñu ko changer c'est important important. Mm. mais euh, tamit fa jigéen ñi jigéen ñi quand même nak il mm. faut ñu euh dama len dama len dama len dama len dama len dama len dama len dama len leen xaw tout ci ay 8 avril et tout. def seen ay nuyoore ñëw tok paré dem seen yoon mais il faut ñu génn si loolu dugg ci leneen rationalisation. Mm. ñi rationaliser exactement jigéen ñi si li nga xam nekk développement bi. Mm. li nga xam ni itam noonu la ko changé di entre être coopération. Mm. famille enfance c'est important. ñi nga xam ni itam noonu la ko changé noonu aussi la important wee. ni ni dollee affaire étrangère intégration africaine. Mm-hmm. c'est important donc euh, si may mën a jëy va veiller à cela et que mhm. les lu si war rek je pense mhm. que euh, dina ko mhm. euh, pour gën a li nga xam ne que moo di jigéen ñi les féministes yi nga xam ne itam ñooy xeex ngeen ngeen ngeen ngeen seen bàyyi yooyu daal mais en tout cas gouvernement d'urgence leen woote il faut ñu jël les têtes ba pare il faut ñu jël les craques après nag suñ paree nag suñ amee changement tuuti ñu yaatal ko mais ça bi nak ñom do directement si crack directement tu ay crack franchement ñep ay crack lañu mais mm. ñi ñu jox ñi manam mm-hmm. et que euh, xam parce que mm-hmm. man fallu nga dama ministère des finances justice def ay ma gérer ko. sama mm-hmm. ah ah mën ci concept mm. une semaine au Sénégal day dafa am ñeneen ñu ah, euh, Ali Ali euh, ñu lay envoyé woon ñu euh, justement mm. li la envoyé ni soñ ko au tégal dès que possible. Euh, une semaine au Sénégal. Mm. maintenant je pense deux ans. deux ans oui On mm-hmm. nga commencé tourner bataille. -hmm. maintenant deux ans on nga commencé tourner bataille. tey. Mm-hmm. mu nekk une magazine benn magazine d'information, information xam ne mm-hmm. dox actualité. Je semaine mm. round up. de l'actualité de la semaine euh, actualiser ko mm-hmm. mm-hmm. parce que round la euh, le début. après une semaine au Sénégal une semaine yi. Mm-hmm. li xew Sénégal hein? mu un concept boo xam ni bien réfléchi. loo alors euh, Ali tout mënee am li ma envoyé du côté de la régie. Euh, tout d'abord euh, euh, waa euh, DTV. DTV. tout tout DTV GTV la tudd. GTV. Mhm. gis nañ mhm. leen tey dans votre parution allez dina une semaine au Sénégal ndax mu ndax mu s'il vous plaît s'il vous plaît je pense mhm. que ñuy seetaan. une semaine au Sénégal c'est un concept boo xam Sénégal 5 TV moo ko diffusé. pendant des années donc tous les samedis d'un exactement à partir de 17 h mhm. Nous gis à notre grande surprise mhm. GTV mhm. jël le même concept une semaine au Sénégal du coup, divisé le même jour le samedi du coup, divisé à la même heure mu nekk loo xam ni franchement on s'en offusque concept émission a yàgg nañ ko mais des fois ça nga un peu une bi wala des fois ça nga changer Sénégal bi dugal copier même nom bi même fréquence bi c'est abusé même concept bi. Mhm. Euh, même sax euh, générique bi sax ñoo ko xaw a suñu générique mhm, mhm. c'est abusé. donc franchement. DTV euh, wala GTV. jàpp leen concept bi suñu ay ndaw wala kon sax suñu ay fans li ñu bëgg. ñoo ko en voie. ñu ko que ni. Fallou kañ ngeen jaay une semaine au Sénégal. une quoi à notre grande surprise. nous ko gisandoo. une chaîne de télévision en place. benn site internet xalaat concept mhm. une chaîne de télévision jël ko di ko diffuser. reprendre quoi donc une semaine au Sénégal. Mhm. c'est une émission boo xam mhm. euh, delluwaat leen YouTube une semaine au Sénégal ba nga ko commencé diffuser ba tey maintenant deux ans. deux ans dugg leen ngeen une semaine au Sénégal sur 5 TV. Mhm. di ngeen gis concept yi nga xam ni itam doon nañ ko def yow rek bu nga ko commencé def mat presque 3 mois. mat na 3 mois te ñoom tey mooy seen premier numéro. donc étant d'autres étant d'autres c'est une euh, euh, c'est un concept boo xam itam Sénégal 5 TV moo ko mhm. et que ñi ngi ñaan bu baax a baax la DTV. Mhm. Euh, ñun deen jéem wax ak ñoom à notre niveau. euh, la GTV. pour ñu wax ni que ni c'est un concept.

incha hmm. euh, merci Fallou euh, ci waxtan bu am solo bi fi amal. Hmm. merci beaucoup. waaw merci jërëjëf. Euh, ñu ngi jox wa pertinence bi et hmm, tout précision yi ak tout euh, éclaircissement yi nga andi yépp mais on allait oublier l'affaire de de de de de Teuw Niane gars ñu si interpellé pourtant l'affaire de marie Teuw Oui, oui, waaw waaw affaire affaire en uh-huh. tout cas. Uh-huh. Euh, d'après euh, yenn si ay quotidiens tey. Uh-huh. Euh, si 30 secondes d'après certains quotidiens. la Cour des comptes dafa épinglé qui n'a jamais que moo dit justement marie Teuw marie Mary Teuw directeur cabinet. bu ki n'a xam ne modi Bassirou Diomaye Diakhar Faye. le président bi nga xam itam. mu aussi si na nga que modi coalition. Diomaye 2021. 2024 mom nak épinglé nak si nga xam nekk moo 14 milliards si nga xam nekk moo coup Cour des comptes alors la mhm. question qu'on va se poser d'après toujours li nga xam que modi l'apparition des journaux mhm. en tout cas d'ici là nous aussi nous mu gën pour plus mhm. aussi de vérification ni euh, xaar ma xam Diomaye dina ko sauvegarder wala kon ma xam dina ko remercier pour mu daal di wujji li nga xam ne mu di yoon ak wàllu yoonal mais quand même pas mal euh, euh, si ay si ay si ay euh, si ay analyse jàpp neen mhm. ki nga xam ne que di Mary doit se livrer à la justice peut-être pour daal di war a mën a régler li bii di xam ne moo di situation ba daal di war a mën a seetal boppam mhm. encore une fois rapport épinglé la waxul yaa def mais ay reproche kese la mhm. ne dem euh, expliquer li nga xam nekk mhm. moo di ak wàllu yoon la ta daal di reprendre exactement mhm. li nga xam nekk moo di ses services euh, Mary Teuw Niane mu nek ko xam ne itam franchement euh ken de si dara Mm-hmm. yaruna, na qualité humaine qualités peut-être mm-hmm. euh, nous euh, personnellement euh, nous avons ak et tout mm-hmm. programme émission mais quand même l'homme propose Dieu dispose avant mu sax mais en ce qui concerne justement ce rapport comme nous d'aller si ñeneen bis bu am parce que encore une fois mm. il faut ñu leeral. Mm-hmm. donc coup des comptes mi ngi noonu. Mm-hmm. aussi dina xam milliards yi. Mm-hmm. quelques journaux où on voit le directeur.

D'accord. Mm. Merci Fallou. Euh, merci à nos chers téléspectateurs. C'était tout pour euh, ce samedi. On vous donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah, mm. avec Fallou. merci, beaucoup. Merci, merci mm. merci. Merci à nos très chers téléspectateurs aujourd'hui. Hein. Euh, vous, vous étiez nombreux à nous suivre. Merci aussi encore une fois de votre attention.

ay créateur la ñu pourtant moo ne ñoom ñu xalaatal leen beneen tour waaw ñu waxtaan ak ñoom jox leen beneen tour pourtant mën na ko mel ne ñoom ñoom ah, ah, ñu ñu bëgg ñëw di bokk ak ñun suñu suñu idée yi day xaw a doy waar suñu ñoon pourtant ñu waxtaane ko ñu xalaat leen beneen tour ñu leen beneen concept ñun tour yi ci 30 secondes lañ koy xalaat waaw gis nga loolu <laughs> tari si di amatina ndam <laughs> merci c'était tout pour aujourd'hui